jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM ñu leen di nuyu bu baax di rafetlu seen ànd ak rajo réew mi FM mbokk yi ñu dellu am mbégte dellu siwaat euh, ci seen émission pencum réew mi comme ni nga xam ne moom lañ ko baaxoo di ànd ak yéen samedi bu jot bu ñetti waxtu jotee jàpp ñeenti waxtu Abdou Khadre Seck moo nekk ci kàddu gi moom Mamadou jaaw Diallo nekk ci wàllu technique bi euh, ñu jaajëfal nag bu baax a baax am mbégte kontaan te tey invité professeur Meissa Babou mu nekk nag ab jàngalekat bu mag bac ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru di jàngale ci lu jëm ci wàllum koom maanaam muy euh, économiste boo xam ne bu ñu ràññee la professeur euh, maa ngi lay nuyu. waaw Abdou Khadre maa ngi lay fay bu baax a baax di nuyu sa technicien Diawo di nuyu si euh, say auditeurs ci sa émission bu yaatu bi. professeur euh, waxtaan bi euh, fi ñu koy doore dañu koy doore rek ak euh, actualité bi nga xam ne moom moo gën a jàmp bii moom xam naa ne sax ne laaj bi du jëm ci mbiru économiste waaye am nga lecture am nga loo xamante ni moom nga njort ne moo ko waral li nga xam ne mooy état d'urgence bi ak couvre-feu bi nga xamante ni indiwaat nañ ko fi yow en tant que citoyen sénégalais lan moo ci sa xalaat waaw dama jàpp ne euh, su fekkente ne yu mel ni mbas am na dëgg la ci réew il faut que état euh, ñoom autorités yi ñu jéem a def ñu protéger population bi et protection boobu day jaadu léeg-léeg nga jël lu mel ni état d'urgence def lu mel ni couvre-feu wala confinement ni ko àdduna bépp xëy na di defee mais soo xoolee particularité sénégalaise day nekk réew moo xam ne nii suñ capacité de résilience dafa faible maanaam tey sénégalais yi soo leen jëlee même à quatre-vingts pour cent ñu ci bëri fanaanawuñ ñaari dépense te soo xool informel bi eh, dafa am solo ba nga xam ne bu fekkente ne eh, dañoo am guddi am bëccëg mu mel ni virus bi xàmmewul guddi bi ak bëccëg bi dëgg la mën nga def couvre-feu mais day fekk couvre-feu boobu ñu am ay place yoo xam ne nii nit ñi dañ fee dajaloo ndax dajaloo la euh, feebar bi di bañ ma jàpp ne bu fekkente ne da nga euh, tëj baar tëj restaurant ay vingt et une euh, nit ñi guddi euh, franchement gisuma su su ñu génnee gisuma fu ñuy dem di dajaloo am moins que ñu toog seen bopp koñ yi te xam nga ne temps yi dafa xaw a sedd ñu ci bëri duñ mën loolu kon ma jàpp ne couvre-feu bi def nañ ko dëgg la mais li mu yàq ci bëccëg bi moo moo moo gën li muy lijjanti ci guddi damay wax faral di wax sax ne ce n'est ni le problème ni la solution ndax du problème bi ndax guddi bëriwul jalt jalt alors que soo ko defee pour guddi bi kese ba teg bi suñu xëyee day laal yeneen secteur day am ay effet ñun mën naa jël sax secteur bu kenn dul xaar muy jàngale ndax ñun tey dañu réaménagé suñu agenda au lieu ñuy commencé cours soir dix huit heures dix sept heures la ñu koy commencé di ko teel ko arrêté dix neuf heures c' à dire que chaque jour dañuy perte trente minutes ci suñ quantum horaire xam nga fekkente ne beneen entreprise aménagé noonu keneen aménagé noonu su yàggee day mel ni sur le plan national euh, en tout cas ci ñaari gox yi ko def muy Dakar ak Thiès dana yàq lu ay activités yu bëree bëri bëri ku nekk mën na la perte loo trente minutes une heure de temps loolu am na solo ci production ma ma gis ne daal kon su ma sañoon xëy na dañuy tëj baar ak restaurant guddi rek mais bëccëg bi nga xam ne nag euh, car rapide yi Dakar dem dikk yi école yi yooyu marché yi yooyu nga xam ne vraiment euh, jalta jalta fa la am xëy na foofu la xalaatoon ne danañ fa xaw a xool ay mesures yoo xam ne nii dana dana pas tëj mais au moins danañ euh, fa teg ay agents yoo xam ne danañ mën a surveiller euh, daje bi kon gis naa ne dana gàllankoor ci koom bi lu bëree bare bëri. d'accord euh, professeur euh, président Macky Sall euh, mën nañ koo tuddee noonu bi coronavirus dikkee Sénégal dafa décrété woon li nga xam ne mooy état d'urgence ak couvre-feu dem ba mu yàgg mu daal di dindiwaat lépp daal di wax ne woppi coronavirus mënuñu ko mënuñoo xeex ak moom. suñu économie di nërmeelu te moom gis na ne économie bi ma ngi nërmeelu mu daal di euh, dindiwaat état d'urgence bi ñu jekk-jekk euh, delluwaat delluwaat foofu noonu loolu euh, est-ce que mënul indi jéexi jaaxa ci xelu askan bi ak yow nan nga koy expliquer lu mel noonu waa xam nga am na benn moment quand même mm, il faut reconnaître que mbas ni xaw na wàññeeku bu baax a baax demoon nañ ba ay cinq cas defe naa ne foofa jaadu woon nañu assouplir mesures yi maanaam vraiment jaadututoon nag ñuy dem ci ay état d'urgence yu métti yooyu ndax xam nga Afrique ak Sénégal li leen xaw a may chance ci yëf yi mooy temps tàngaay boobu muy mois d'avril mai juin yooyu da ngay dem ma nga xam ne euh, virus bi daanaka du fa mën a dund ci tàngaay bu métti boobu kooku taxoon na ñu dindi mesures yi. waaw mais professeur. professeur mhm. keroog bi ñuy dindi mesures yi. soo xoolee mhm. Sénégal moo ëppoon i cas jamono ja ñuy jël mesures yi. waaw xam nga bi ñu koy dindi sax euh, soo seetloo c'est sous la pression des jeunes euh, pression populaire la boo xam ne ni à la fois xale yi guddi ñu ngi tasaare fépp euh, ba pare ba maarabu yi aussi jumaa yi ñu tëjoon yooyu mu am ay contestation sociale yoo xam ne ni ça pouvait déboucher ci yoo xam ne nii xëy na euh, état bi xam xamoon na fi mu jëm looloo tax xam naa mu xaw ci reculer mais il fallait reconnaître ko aussi que ne période boobu xëy na mën nañu assouplir tey nag ñu ngi jëlaat ay mesures li li question bi kay mooy pour pourquoi tey la gën a tar Euh, te tey teguñu mesure ardi yi ñu tegoon yu njëkk ya ba nga xam ne protection totale nit ñi lañ ko am maanaam ñu ñu arrêté yenn activités yi euh, même ba oto yi ñuy wax trente pour cent xam nga trente pour cent mënoo ne mënoo ne dañuy dañuy euh, jéggi par benn place alors que bu njëkk cinquante pour cent la woon nga xam ne ñaar nit ci biir oto duñ jegante donc c'est vrai que tey moom les les les les mesures tardent à être effectives ci ci ci baax boo xam ne nii danañu mën a euh, faagaa euh, danañu mën a euh, protéger man ci suma xal mu gàtt dama ne woon il fallait prendre le le pari et le risque de tout fermer en une semaine parce que tamit soo virus bi su toogee une semaine circulé wul xëy na mënoon na wàcc bu baax a baax. kon yow confinement nga xalaat confinement nga xalaat. waaw dama ne woon une semaine boo xam ne ni tout s'arrête amul car rapide buy daw amul Dakar de dëpp buy daw s'il le faut arrêter les écoles et tout. nga xam ne euh, dana tax semaine boobu virus bi damaa jàpp ne surtout ay deux cent trois cent cas quand même euh, mënoon nañ egg ci une semaine de confinement pour xool euh, la suite à donner à ça. waaw mais mais professeur sànq yow yaa wax ne boo xooloon quatre-vingt pour cent ci Sénégal yi yoruñu ñaari dépense ñaari fan yoo xamante ni dépense bi ma ngi ci seen poos loolu est-ce que bu ñu ko defoon. waaw waaw waaw xam nga pour santé publique da nga toll foo xam ne nii am na loo xam ne nii xam nga yàggul une semaine laa la wax loolu xëy na. su fekkente ne teel nañu avertir nit ñi parce que mesure tamit dafay xaw brusque trop dañuy toog benn guddi ne suba xam nga yooyu tamit kenn du préparé wu mais fu ñu ne woon su ñu semaine prochaine semaine ba ca topp danañ jéem a tëj ndax vraiment affaire bi dafay xaw a kii xëy na nit ñi danañ mën a euh, fa fagaru fagaru boo xam ne nii xëy na une semaine de consommation s'il le faut état bi su jaree mu def ay subvention mu def ay subvention préparé donc euh, euh, ay en tout cas politique bu ñu mën a xool la. ndax euh, mën nañ ko def euh, def ko suñ ko mun mënta def nag ñu assouplir yenn ñu ñu ñu ñu xaw a dëgëral yenn côté yi rek quoi. d'accord léegi professeur yow lan moo ci sa xalaat ci ak noo ko gisee noo ko jàngatee ndaw ñi nga xamante ni tey euh, couvre-feu ak état d'urgence bi nga xam ne indiwaan nañ ko fi fan yi ñu génn ñenn ñi. d'accorduñu si biñ koy dog di teg ndax am na ay ndaw ñoo xam ne ñoo ngi doon amal ay manifestation yu baree bari euh, révolte boobu noonu fipp googu ci yenn ci ci ndaw ñi ci yenn ci ay gox lan nga jàpp ne moo ko waral. waa xam nga ce sont des jeunes désœuvrés très souvent xam nga fii euh, ñoom ñëpp ay chômeurs lañ sooy xool ñi nga xam ne da leen impacté économiquement parlant muy les veuves ak euh, yenn père ak mère de famille yi jaay ay cere ki laax ak yooyu ñooñu sooy xool guddi gi ñoom la gën a impacté mais. xam nga xale yi fii ils sont tellement désœuvrés que ils ils voudraient traîner faire leur petit truc la nuit ba ay vingt deux heures au moins wala vingt trois heures euh, ma jàpp ne xëy na heure bi moo teel vingt une heure bi moom vraiment dafa teel teel teel boo xam ne nii les gosses là se sentent tellement menacés dans leur existence dans leur vécu dans leur loisir euh, moo tax xëy na ñu ñu ñu def révolte bi mais suñu yëkkati woon heure bi par exemple ay vingt trois heures je crois que yooyu moom doo doo woon am daal mais euh, ils ne comprennent pas aussi suffisamment le discours ou, ou, ou, en tout cas de l'État ne passe pas trop bien. Il y a une rupture de confiance entre État bi ak une certaine population yooyu yëpp ay facteur la explicatif yoo xam ne ni mën nañ moo moo moo indi xëy na jalte jalte yi d' accord lu jëm ci wàllum relance économique euh, gis nañ ne euh, Sénégal euh, teg nañu si ay stratégie ngir nag baral jéego yi ngir suñu koom réew toll fi mu tolloon ba weesu ko ak ñaareelu vague bi ndax jàpp nga ne mën nañu ko def ci benn délai boo xamante ni du yàgg. j'ai pas trop bien saisi la lu jëm ci wàllum relance économique bi. gis nañ ne état bu Sénégal. Mhm. dafa jël. Euh, ay matukaay yoo xam ne moom si la xalaat ne fi lay jaar pour relance bi gën a gaaw lu jëm ci wàllum mhm. agriculture ak yu si ajo léegi ak ñaareelu vague bi ak bor yu bari yi nga xamante ni senegal amee na ko ak ñàkk xaalis gi ndax jàpp mhm. nga ne relance bi Sénégal mën na koo matale ci diir bu gàtt déedéet xam nga euh, ñaari ñaar la ci dekk bi ci bi ci ci njëkk mooy mbas jeexut te tant que mbas jeexut euh, profondeur u dégâts yi day gën a bari day gën a yaatu gën a sori gën a bari kon kooku benn la nga xam ne sax mën na mettre euh, en doute l'ancien plan de relance boo xam ne nii pratiquement ci at bi gën lañu ko defoon ñaareel bi mooy euh, plan de relance bi nga xam ne euh, mën nañ ko war a relancer xam nga ñoom dañuy def benn plan boo xam ne nii ça tourne autour de sept cent et quelques milliards mu ñëw fekk si plan Sénégal émergent numéro deux ñu koy wax PSE2 bi Euh, ñu soo leen boole muy ay quinze mille milliards or euh, ren rek soo seetloo ona a un déficit budgétaire de mille trois cent et quelques milliards euh, pour wax ne Sénégal effectivement ñu ngi ci ay difficultés de trésorerie on a des problèmes de liquidité ba nga xam ne pour relancer ce sera extrêmement difficile ndax secteurs sociaux yi nga xam ne dëgg dëgg relance bi ñoom ñoo ko bind fa la war a jaar loolu dafa dafa xaw a jafe ci bailleur de fonds di la ko jox xam nga barre de fond soo ne ko kaay defaral ma stade day daw sax suy ñëw soo ne ko autoroute à suy ñëw day daw ndax ñoom ay banque ngi seen ginnaaw prêt à ces investissements yoo xam ne ni intérêt bi dafay bëri yooyu mais bu fekkente ne relance da nga ne da nga jiital ne agriculture mais doo gis benn barre de fond boo xam ne nii tey dana nangu uh, ñëw financier la ko soo ne ko sama soo ne santé euh, tamit euh, ce sera pareil école même chose énergie bii ñuy wax c'est la chose donc yooyu ce sont des secteurs yoo xam ne ni seen rentabilité économique dafa faible ce sont des secteurs plus beaucoup plus à rentabilité sociale nga xam ne bailleurs de fonds yi sawaruñ ci soo gisee ps 1 e bu njëkk ba amul benn investissement social bu ñu mën a gërëm maanaam du mbay du école euh, du université euh, du hôpital loolu mooy blocage bi ñoom ñoo war a mën a jël nag léegi alalu réew mi mais alalu réew mi actuellement nii dafa sooxe ndax alal yoo xam ne ni tey impôt kese la soo ci fayee salaire fay ci euh, service de la dette bi ñoom ñaar rek soo leen boolee da ngay romb da ngay romb cent cinquante milliards par weer te loolu xam nga douane mënul aussi euh, garantie euh, génn lu toll noonu kon pakata loolu daal blocage la le financement la problématique du financement du plan de relance va se poser en tout cas dans les secteurs sociaux nga xam ne benn bailleur de fonds sawaru ci te état du Sénégal euh, gëw ma ne am na ses moyens propres pour mën a euh, def financement boobu. d' accord euh, li nga xamante ni nag moom mooy solution yi yow fan nga jàpp ne Sénégal kon mën na faa def ba génn ci ba génn ci ba génn ci mball gi ndax su dee amul financement yooyu mën nañoo jëm ni ci ak giraawaal yi la Sénégal jëm. waa mais est ce que nekkuñ ci ba pare parce que xam nga àtte bor fay xam nga ñoom ñu ngi yuuxu fu nañu dem naan nañ baale bor yi baale bor yi bor yooyu du ay bor yoo xam ne nii diggante réew ak réew la du état ak état en tout cas pour au moins quatre-vingt-dix pour cent laay wax man yu ci ëpp ay bor la yoo xam ne nii ay banque ñoo la ko lebal te xam nga nag banque nag du may su dul banque bi xam nga marché financier li ñuy wax la bourse su dul bourse BRVM Côte d'Ivoire bi ñu bokk nekk ay eurobond mais ñooñu tamit duñ may ndax bourse bi yow ak man ñoo fa nekk ñun ñooy jël suñuy petit mille francs dajale ko ba mati milliard ñu lebal ko benn état kon bu fekkente ne atte bor fay la te Sénégal fi ne nii daanaka dafa këmbal maanaam mm, ligne rouge bi ñu tracé woon mu soixante dix pour cent soo sooy xool Sénégal daan egg na fa su fa eggee pour nga lebiwaat banque mondiale mooy def ay autorisation di la jàppale fii ak faa mais am na fu am na montant boo xam ne nii soo ci duggee. danga dem maa xam ne réew mi surtout danañ ko dugal ci li ñuy wax ajustement structurel. d' accord léegi euh, professeur euh, est ce que kon jamono ji euh, mënuñoo jàpp ne. Sénégal euh, jël nay xaalis jël na xaalis dugal ko ci ay projets yoo xam ne euh, njariñ li bëriwul wala du woon priorité ak fi réew mi toll. waaw foofu laa jëmul c'est-à-dire euh, cest à ne constat bi ma def léegi nii nga xam ne da ngay xam ne vraiment Sénégal amut capacité financière bu muy mobiliser tey ndax capacité de résilience même financière Sénégal amu ko gis nga bi ñu mbas mi mbëkkee il a fallu ñu dem wuti xaalis ci biti réew. ak say ak ak euh, banque mondiale yooyu mel noonu ay six cent milliards sur les mille milliards kon effectivement léegi liy jaadu moo une réorientation de la vision xëy na am na projet yoo xam ne démarré na pare donte euh, amul solo mais ñoom def na alal ji ci def fa ëpp xam nga teer ah, euh, ku waxal yàlla rek xam ne wax dëgg yàlla du du projet bu ñuy gërëm même BRT bi dajji mbedd yi dajji kër jàmbur yi pour benn bus boo xam ne ni tey soo xoolee ces ces projets là nga nga comparé ko ak l'ancienne vision de Diamniadio nga xam ne dañoo waroon a wëlbati yooyu yóbbu leen Diamniadio defuñu ko nga xam ne yi ay erreur de casting la léegi nag comme que relance la ñu wax te am na côté boo xam ne ni Sénégal faw moom képp moo ko mën a financer boppam man damaa jàpp ne am na ay projets yoo xam ne nii il faut que ñu sursoir ci maanaam ñu bàyyi ko euh, ba ca kanam euh, daal di xool essentiel bi nga xam ne mbas mi daf ñoo woon les de nos de de de, de nos différents systèmes wan nañu ne bu fekkente ne euh, lu mel ni mbas walla leneen xewet ci àddina bi bañ tëj ko tëj frontières yi Sénégal amul lu ëpp ñetti weeru dund te xam nga tamit loolu c'est extrêmement grave euh, wan ñu ne suñ capacité euh, d'accueil de traitement ci hôpitaux yi c'est extrêmement faible ay hôpitaux yoo xam ne avant mbas mi di am ku fi yor malaat guddi foo dem ñu ne la fees na xam nga yooyu soo xoolee suñ université yi ça explose on n'a jamais mis encore une grande université kon dimension yooyu daal nga xam ne moo am solo laa jàpp ne Sénégal am na projet yeneen xëy na yu nekk seen bopp yoo xam ne ay autoroute à jëm Saint-Louis la beneen bi autoroute à péage bu jëm Kaolack la ak yu mel noonu man damaa jàpp ne ça il faut les arrêter nga daal di jéem a fexe nooy nooy nooy defee investissement yi ma wax léegi nga xam ne moo ëpp solo ci askan bi te moo koy dimbale. léegi investissement yooyu fu ko Sénégal di jëlee ndax gis nañ ne mbas mi rek euh, bi muy commencé noonu rek Sénégal première vague bi abboon na lu toll ci ay six cent milliards fan la ko Sénégal di jëlee financement yooyu professeur. waa xanaa rationaliser xam nga tamit ñu it kenn dañoo rawut ndax xam nga réew it wax dëgg yàlla mënoo dem jël sa euh, ay presque quarante ministres yu am budget wëlbati ko di wut ay cinquante conseil fait ministre réew mi yëpp ay ministres ki conseillers nga dem ay structure comme bi Idriss Seck jël conseil économique social nga dem jëli bële euh, soxna si nekk euh, au conseil xam nga franchement pour contenter des des des adversaires politiques et les maintenir dans une politique politicienne ñu ñuy coûter état bi loo xam ne ni wax dëgg yàlla euh, ci at bi soo leen additionné rek surtout da nga romb cinquante milliards te cinquante milliards wax dëgg yàlla defar na hôpital cinquante milliards soo ko engagé ci ab université wax dëgg yàlla su parewuti dana sori cinquante milliards soo ko dugalee ci biir plateau médical bu Sénégal mais xëy na xëy na wax dëgg yàlla nag mën naa jur dara kon bëri na ay ay ay fact ay ay ay façon yoo xam ne nii fekkante ne wax dëgg yàlla euh, dañ ci góorgóorlu ñun mun nañu euh, sakkanal euh, ci côté droite sakkanal ci côté gauche imagine à l'époque yàggul sax ah ñu ne un ministre avait cinq cent mille de téléphone mais wax dëgg yàlla xam nga tamit loolu nag ci réew moo xam na ni yow Euh, da loo yor da nga ngay jox benn mi cinq cent mille téléphone ñu ne wàññi nañ ko léegi def naa trois cent mille la mais c'est une hérésie. kon loolu pasar dañuy pasar pasaree alalu réew mi. mais justement loolu laa bëgg wax cest à que euh, rationalisation bi may wax mooy effectivement ñu ñu ñu xam lu jaadu. kilifa kilifa la on leur on on leur donnera les moyens de leur mission mais quand nag wax dëgg yàlla damaa gisut lan moo fi xew. ba nga xam ne conseil par exemple économie sociale bu Idrissa bu bees bi ñu koy yokkal deux milliards. pour lu tax ñu ko yokkal deux milliards euh, ba fa Mimi nekkee la mu daan doxal mais wax dëgg yàlla le même budget la mënoon na kon ne fonctionner mais da ngay gis ne kon état bi dafa mel ni moom dafa dafa dafa wékku torop torop torop ci eh, eh, eh, ci euh, bor yoo xam ne nii comme ni mu la ko waxee ñooñu ñu kuli ali doo dégg mukk ñu ñëw ne la danaa la defal cent milliards ci bay duñ ko def doo dégg mukk mukk mukk ñu ñëw sax naan la hôpital bu bees mën naa la ko defal parce que suñu yooyu amul rentabilité te banque yi leen di financer ñoom ñooñu banque yooyu dañuy exigeante dañuy euh, obligé yow mi nga xam ne yaa ngi dem Sénégal dafa def projet bi ñu war jox la ay taux d'intérêt jox la ay délai de paiement te nga xam ne loolu ngay def infrastructure boobu ngay def xëy na amul rentabilité Sénégal fii mu ne nii li muy def ci ce qu'on appelle euh, le le le le de la dette là j'ai perdu le mot le service de la dette plutôt soo gisee Sénégal li ñuy def ci le service de la dette tey mais loolu at weer wu ne mënoon na def benn affaire bu bu mucc ayib ndax on est presque à quatre-vingt quatre-vingt-dix milliards par mois xam nga tamit wax dëgg yàlla bët du yanu mais xam na lu bopp attan nag. d'accord euh, euh, il faut s'arrêter. jërëjëf euh, professeur Meissa Babou di économiste bu ñu ràññee moom la ñu invité tey ci seen émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM professeur ñu wax ci li nga xamante ni moom mooy dette bi Sénégal amee bor bi. bor bi euh, ñenn ñi sax dañoo jàpp ni jéggi na jéggi na dayoo ba nga xam ne sax maanaam euh, inquiété na wala jaaxal na ñi nga xam ne ñooy partenaire euh, technique ak financier yu Sénégal fan la réew mi jëm ak bor yooyu. waaw xam nga problème la te xam nga fii chiffres yi ñuy joxe ñoom souvent c'est c'est de faux chiffres mais for naa ci woy woyu béy ay plus plus de onze mille milliards de dettes te loolu da romb sax soixante dix pour cent yi nga xam ne moom la ñu rëddal. muy muy la frontière muy la ligne rouge euh, bor yi bari na bari boo xam ne nii ñoom euh, fañ teg seen vision bor rek moo koy defar ndax Sénégal amul capacité boobu ay projets yoo xam ne boo ci jël ëpp na quatre cent trois cent milliards mais Sénégal amul loolu yow sokkante ne amuloo deux cent milliards yoo def sa mbay amoo cent milliards yoo def ci sa santé mais képp ku ne la maa ngi lay defaral projet mille milliards rek cinq cent milliards mais c'est que euh, da yow soo ko nangoo yaa yaa yaa yokk sa bor ay bopp sa ay bor ma jox la exemple la Ghana président bu bees da ñëwoon daaw daaw jekk xaw ma daaw mais dafa ñëw fekk fa xaalisu benn aéroport bu bees mais dafa jël lépp delloo leen ne leen déedéet man fi ne nii moom ay bor ki ay bees moom mën naa ñàkk bàyyi leen ma ma xool feneen fu may jaar pour mën a def sama yeneen investissement yoo xam ne ni sama réew loolu lay gërëm wala loolu mooy demande sociale man loolu laa gëm mais bu fekkente ne yow ku jóg. ak fu mu mën di jóge su ñëwee ne leen mën naa laa demal ci weer wi sax nga ne ko acca parce que simplement day yomb ci yow facilité boobu d' investissement bi ndax yow du la laaj dara léeg-léeg 5 pour cent la lay laaj wala 10 pour cent nga xam ne 10 pour cent ci 500 milliards 50 milliards rek la kooku Sénégal daan luy moom du problème mën naa laa jox kay 40 milliards wala 30 milliards nga dóor projet 500 milliards mu nekk du voyer mois boo xam ne nii wax dëgg yàlla c'est à ah soo leen waxee ne Dakar ñu ngi fi def BRT di fi def euh, terre euh, defar fi jam ñaajo euh, loolu lépp soo ko boolee investissement yi fi def mu ëpp ay sept mille milliards wala quatre mille milliards mais waa Thiès ñoom dañ daan xanaa ñoom bokkuñ ci réew mi demal Louga demal Kaolack donc dafa mel ni bor ñoom dañoo xamut les limites dégg naa président de la République def naan ñi wax xamuñu dara ñun ay financier la ñun ñoo koy jàngale moom ingénieur la ah des terres xaw ma et des sols yu mel noonu moom moo ci xamul dara ñun li ñuy wax mooy euh, ce sont des critères de bonne gouvernance financière maanaam su dee entreprise am nañ suñuy critère de bonne gouvernance financière su dee banque am nañ ay critère de bonne gouvernance financière su dee état am nañ ay critères de bonne gouvernance financière ñun nag duñ police duñ gendarmerie duñ tribunal li ñuy man ci conseil mooy attention fii bu fa egg lii bu ko def soo ko defee lii moo la ci fekk ñun ñëpp gis nañ ko augmentation des prix lañ jëm ndax bu fekkente ne réew mi amoo lu dul fiscalité bu fekkente ne sa fiscalité bi dem nga ba nga xam ne doyatul sax pour fay sa bor yooyu wala boog soo fay say bor ah, da ngay am ay problème salaire mais immédiatement inflation intérieure bi nga xam ne Sénégal tey daf ko yor euh, da day gaañ day gaañ askan bi xam nga la déggatoo subvention Sénélec est-ce que déggati nga ko ko defati parce que dañ ne Sénélec débrouille débrouille mooy yokkal say prix. ñëpp xam nañ ne courant bi dañ ko yokk ñëpp xam nañ ne ndox mi dañ ko yokk. fi diwlin gi même diwlin gi instant bi yokk na. diwlin day yokk xam nga ciment yokk woon na fi fer yokk na fi. ah xam nga essence yokk nañ ko fi même même même soble aussi yokk waaw mais commerçant yi nee nañ ma ci kii bi nii soble bi dafa cher parce que saako bi demoon na ba dix mille te ñoom euh, après ñaata lañ koy waxtaan naa ci ak commerçant bi mu ne kilo bi non kilo bi rek euh, professeur kilo bi démb rek euh, jënd naa ko mais six cent franc laa ko jëndee. yokk na six cent franc ci kilo bi. mais c'est anormal c'est-à-dire que su ñuy wax tey Sénégal le coût de la vie soo ñu comparé Guinée Mali Côte d'Ivoire wala Mauritanie da ngay gis ne inflation intérieure bi nekk fii Sénégal ñoom statistiques yi 1 pour cent bi ñuy wax noonu loolu du dëgg Sénégal tey sooy xool depuis euh, ay 7 ans soo xoolee inflation bi li ma leer mooy ëpp na 7 pour cent ndax li fi yokk dafa baree baree bare ba xam ne nit ñi dañuy wax ne dañoo sonn en fait coono bi souvent duñ xam. ndax soble leen ko teg duñu xam ndax location moo leen ko teg duñu xam ndax courant moo leen ko teg ñu xam ndax ndox moo leen ko teg day mais dañu yëg ne rek euh, dañoo gaaw a ñàkk naan xaalis amul valeur alors que xaalis am na valeur affaire bi niñ ko defee moo baaxul. d'accord professeur léegi euh, li nga xam ne tey wax nga ko sànq ci sa biir wax bi ngay commencer lu jëm ci annulation de la dette de l'Afrique gis nañ ne. Sénégal ma ngi sàkk ñu baal ko bor yi ndax jàpp nga ne lu mën a nekk la. waaw ñooñu sax baaluñu leen dañ leen a différer maanaam xamuñu ñun six mois lañ ñu mayoon donc janvier bii ni fin du mois bi dañuy commencé fayaat gouvernement bi noyyi na ay six mois nag fayut mais fi ñu dafa war commencé fay nag la ah, fii nag moo moo nar doon nag aalikalaj bi li nga xam ne jox nañ ko Congo jox ko Tchad jox ko eh, eh, eh, Éthiopie dañ leen a defer ñetti at ñun six mois lañ ñu may ñooñu ñetti at ñu may. lu tax ñu lu tax ñu may lu tax ñu ñetti at ñooñu ñun six mois. waaw parce que am lay ñun dañoo am lay xam nga Congo pétrole kese la moom amul leneen. moom pétrole ba daa daanoon ba dem dix euh, dix loolu nga boole ko mbas mi euh, c'est intenable. maanaam ñun dañoo ñun dañoo mënut wax lu yeey ñooñu. ah amu dañ ko amut. amuñu argument yi déedéet mbas rek nga am. Ah. mbas mbas nga am di jaay sa réew ne yaa ngi ci sept pour cent de croissance alors que euh, ANSD nee na barki démb dix neuf en deux mille dix neuf six virgule deux xaw ma ñu doon wax nee na quatre virgule quatre la yow yaa génn say faux chiffres teg sa bopp foo eegul mais am lu amatoo lay mais Tchad daf ne carrément man damaa yor mbas yor guerre Éthiopie ne man damaa yor mbas nekk ci sécheresse wane situation économique boo xam ne ni dafa metti jéggi dayoo mais bailleurs de fonds yi tamit daan nañ mais ñii jar nañ jar nañ dimbale mais Sénégal su ne am naa mbas lu mu ciy teg Sénégal nanguwul wax ne damaa sonn Sénégal loo ko wax mu ne mi ngi dox mi ngi dox mi ngi dox waa kom que mi ngi dox nag ku lay may duñ la may duñ la abal foofu la foofu la affaire bi ne. Séné euh, gi nga deux mille xaw ma deux xaw côté yooyu Abdoulaye Wade président Abdoulaye Wade bi mu ñëwee dafa def Sénégal mu nekk genre PMA pays mooy avancé ñu baal ko presque soixante dix pour cent endettement bi mu yoroon ndax PMA la mais après loo ci gis dañoo dawal tuuti rek ñu commencé naan euh, Sénégal genre Sénégal émergent aussi moo fi amoon boobu ba léegi Sénégal mënutul wàcc lu dugg ci PMA yi te soo nekkul ci biir PMA PMA yi amoo ay critères. maanaam amoo lu la faagaagal économiquement ba nga xam ne àdduna bépp dañ ko xam ne dëgg la man maa ngi fii Sénégal te loolu xam naan dëgg la ndax euh, ci euh, ñett réew benn laa ci dem mais gis naa ne effectivement loolu rek lañu am dem naa Congo kon pour wax ne euh, Sénégal mënut a amul lay léegi nag comme que amoo lay juróom weer yi maye woon jeex na da ngay commencé fayaat te ñaareel bi ci des mooy bor yi dañoo neexut a baale nee naa la bor yi ci ëpp xam nga ñan yoo ko joxe. mooy chinois yi ngay gis nii di gis turki yi ni mais du gouvernement turc du gouvernement chine ay banque lu mel ni Exit banque moo nekk seen ginnaaw même marocain yi ngay gis nii benn ah, banque marocaine moo nekk seen ginnaaw dañ naan leen réew moo leen dem loo leen fa décroché ñu financé leen su dee mille milliards sax dañ leen di jox mille milliards yi parce que dañ ay intérêt la banque yu banque yooyu dañoo ay la ñu am ba pare wut fu ñu koy xëp bu fekkente ne da ngaa jóge ci banque banque du la may du la la baal du maye ñaareel ba euh, yeneen bor yi ay lan la eurobond lan mooy eurobond mooy marché financier européen beneen bi ci des BRVM la muy marché euh, bi ñu bokk ak Côte d'Ivoire fii mais foofu ay obligation la maanaam yow ak man keneen ñoo fa teg suñu ñaar téeméer ñetti téeméer ku bëgg a lebal xaalis ñu lebal te man du ma maye yow doo maye pour wax ne suñu dooman tey ba ñuy baal baali bor sax dix pour cent lañ ñuy lañ ñuy baal benn te loolu c'est vraiment franchement man dama ne sax loolu c'est même pas un argumentaire à développer la ñu waroon développer mooy nous sommes confrontés à des difficultés financières au niveau du trésor xëy na mbas bi yàqal nañu ñun li ñu yàqal mooy ñun suñ suñ fiscalité lañ am te fiscalité bi doxatul ndax réew mi doxut marasme économique la mais su boobaa nga négocier sax un an de différé wala deux ans de différé mais soo fekkante na ngaa yorob rajo ah euh, ñu naan la leader leader leader nga taxaw naan effacer la dette Macron mi wax na effacer su ko mënee su mënee jënd boro Sénégal yi na ko jënd c'est aussi simple que ça. Euh, jërëjëf euh, professeur euh, Meissa Babou leneen li nga xamante ni tey mën nañu ko wax ndax xam nga bor yi su dee bor yi dafa dafa bëri ak Sénégal ni mu mel nii tey taux de pauvreté bi ci Sénégal maanaam ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw mënuñu matale ndekki añ reer boo ko doon xayma tey si ban ban natt nga koy jox. waaw man du ko def sax sama ay nattango defe naa ay ñaar weer lay toll wala ñetti weer de fii ci université Cheikh Anta bi euh, ñoom biñ ko defee cinquante cinq pour cent lañ génne de pauvres te xam nga euh, affaire bi daanaka en deux 2012 on était dans les quarante six pour cent quarante cinq pour cent euh, ndax defe naa ne président Abdoulaye est ko fekk ko woon ay cinquante sept ak jàpp soixante pour cent mais li la fa am. mooy li mu doon wax léegi xam nga bu fekkente ne inflation intérieure dafa am maanaam soo demee ba nga xam ne yow pour ku jigéen rural bi wala jigéen keneen ki pour mu togg def ci soble il faut que mu dem jënd benn libre boo xam ne trois cent franc lay jar au lieu mu jënd ko cent franc wala fukk ak juróom fekkente ne diwlin nga yokku na bu fekkente ne euh, yu sew sewaan yu bëri. factures yi factures yi aussi facture ndox. courant yi voilà facture courant ndox. xam nga yooyu day appauvrir euh, sa askan maanaam dama li ma doon wax naan inflation intérieure il faut comprendre que dama bëgg wax ne ñun li ñu daal euh, jógewul biti réew ñëw daal ci suñu kaw xam ñu ngi koy wax ci diwlin gi et c'est pas vrai fii ci biir réew mi la ñun ñoo am suñu problème inflation intérieure léegi nag yooyu su dajee ci nit te nit ñi ñaarang ci ñoom euh, benn bi ñi ñi liggéey bariwuñu ñi ci des dañuy ay góorgóor xam nga góorgóor lu wax dëgg baat la boo xam ne soo ko déggee tey kuñ naan kii cinquante mille par weer lañ koy fay wala quatre vingt mille te xam nga ba ca des mooy chômage bi dafa bari chomage boo xam ne nii bari na bari goo xam ne nii euh, tey liggéeykat moo moo moo moo bari te boo bariwul te liggéeykat yooyu li ma la wax nii su leen dalee muy le coût de la vie da ngay gis ne ñoom ñañ doon dimbali sax dootuñu leen mën a dimbali kon euh, Sénégal moo tëddee dëkk bu cher dañuy wax ne bon est-ce que bokkul ci quatre à cinq capital yi gën a cher ci àddina bi te loolu ñoo ko defee suñu bopp man dem Mauritanie am fa salaire Mauritanie dund Mauritanie moo ma gënal. dem Gambie am fa sareetu Gambie eh, di dund di dund eh, consommation Gambie moo gën fopp salaire million Sénégal boo xam ne nii wallahi amul njëriñ. d'accord parce que da ngay da ngay dem ba xalaat sax ne xaalis ba fan la ma jaar kon. Uh-huh. le fait que c'est ça coûte trop cher. Euh, location yooyu daf day yokk taux de pauvreté bi d'année en année. d'accord euh, euh ñu wax ci location foncier bu autoroute Ila Touba bi. ak cherté gi nga xamante ni tey ñu bari d'accord nañ ne autoroute à péage bi dafa cher Euh, par rapport boo ko méngalee ak yeneen réew yi moo xam boo si jaar dafa cher. niñ ko mhm. tabaxee tamit euh, xaalis bi ñu ci dugal dafa cher. beneen bi location foncière bi dañu waxoon ne Eiffage ñoom 1000 francs lañ doon fay léegi nangoo na ñoo fay at mu jot euh, cent million laaj bi mooy autoroute à bi ñu wax ne dafa cher niñ ko tabaxee beneen bi dafa cher ñi siy jaar ak location foncière bi ban jàngat nga ci def. c'était un très mauvais contrat en fait dafa xam nga nag loo gis day évoluer. xëy na bañ koy def il ne s'attendait pas à cette réussite la dem nañ ba nga xam ne vraiment euh, trois cent pour cent wala quatre cent pour cent de rentabilité finalement la ñu am ci foo xam ne ni xëy na ñu ngi doon euh, imaginer naan ay quatre-vingt pour cent de rentabilité kon comme que évolution dafa am affaire bi dañ il faut ñu changer contrat yi Sénégal dara amu ko ci dafa signé pour quinze ans yoo xam ne ni maanaam du laal daara dara dara dara donc man jàpp naa ne le président Macky Sall a très bien fait de revoir euh, le contrat dans l' intérêt du Sénégal ñu koy fay te man jàpp naa sax loolu tuuti na benn ñaareel bi tikki yi dañu cher bien que président Macky Sall reyante woon na temps ba ba ñu am luñ ci wàññi woon diggante Diamniadio ak euh, aéroport mais euh, autoroute Touba bi dañ ko yokk dañ ci dañ ñu euh, nañ ko sept cent franc daaw jéeg xaw ma pour wax ne cher na franchement parce que aller retour Touba onze mille franc la lay coûté ci autoroute onze mille franc mais loolu dafa bari alatu Touba wax dëgg yàlla kay xanaa junni doy na ci fay cib tali junni doy na ci mais euh, autoroute yi liñ ko tabaxee euh, mas naa dégg un bâtisseur sénégalais la euh, bu bu buy kaas ne li ñuy defaree autoroute Touba bi nga xam ne presque terrain plat la deux cent milliards sax mënoon na ko et on est dans une facture qui dépasse quatre cent milliards pour wax la investisseurs yooyu di ñëw suñ ñëwee Sénégal yi amuñ capacité di xam exactement ndax lii baax na. lii baaxut prix bi cher na cherut euh, état bi moom eh, li ko ñor mooy ah da maa bëgg a defal autoroute à péage aca kon d'accord naa su ko defee banque yi facturé loolu loo xam ne nii dafay cher ñoom it pour pour pour rentabilité ndax euh, gis nga investissement nu mu toll na la njëggay toll terre bi ñuy wax ni xaaral ba mu génn xaaral ba mu génn terre da ngaa defe ne dañ koy def prix car rapide munu ne munoo def mille milliards fenn ba pare ne doo fayeeku nit ñi plus de deux mille trois mille euh, te su boobaa man na mën na wàññi rentabilité bi donc loolu mooy problème bi nit ñi euh, nit ki mënoo ko woo ci benn liggéey mu jël alalam def ko ci nga pare forcé ko na ko par force nag prix bi da koy wàññi wala da nga koy maye nañu waxante dëgg fekkente ne état bëgg na loolu moom na jël une partie de ça subventionné ko première chose bi mu waroon def mooy ticket bi soo ko xoolee dafa am TVA da day na dindi TVA bi mu am ci ci loolu ba pare su ko neexee mu gàddul ñu au moins deux cent francs mais du ko def. d' accord euh, professeur Meissa Babou li nga xamante ni tamit euh, mën nañu ko wax ci lu jëm ci wàllum bon gouvernance yorin wu baax ak euh, yorin wu sell euh, dañu gis ne euh, Sénégal euh, fan yi wala weer yi ñu jàll gis nañ ne daal ci lu jëm ci wàllum bon gouvernance Sénégal am na ci taxawaay bu am solo ci ci ci ci déndu Afrique ndax jàpp nga ne bon gouvernance réellement Euh, am na Sénégal bien vrai que teg nañ nag ay jumtukaay yoo xam ne euh, bu ñu ko jëfandikoo wala exploiter rapport ya fay am amaana bonne gouvernance man naa am yow mbir moomu lu ci sa xalaat. waaw li ci xalaat mooy ñoom dañoo def exposé. Euh, Sénégal mais voilà ñun de suñu réew am na Cour des comptes am na OFNAC am na rmp am na IGE am na IGF am na et cetera tous ces cours de compte gars yi ne ah yéen nag di wax dëgg yàlla kon seen réew ma war naa seet wecc wecc d'accord contrôle yu bari yii. réew mu am ku fa luubal benn dërëm euro franc bitti ñu ne ah ñun de ñun wax dëgg yàlla suñu réew moom nii la moom gouvernance moom dañ koo fonk mais soo ñëwee ñun sénégalais ci suñu biir ñun xamante nañ xam nañ ne xoolal instrument yooyu ñu wax yëpp ba gars yi den félicité ba ca Nations uni benn njëriñ ñu ko réew mi oh, parce que amu ci benn rapport boo xam ne nii am na finalité te dégg nga le président wax nee na am na ñoo xam ne kenn doon jàpp ndax soo jàppee réew mi yëngu c'est quoi dafa am loo xam ne nii wax dëgg yàlla dafa jaaduwul jekkul jaaduwul moi je crois que je ne demande même pas à ce que ça soit mais au moins au moins au moins il faut donner à ces organes là la possibilité d'aller au tribunal déposer directement certains rapports et de travailler avec ces juges là pour que ñooñu jóg def une enquête financière ak euh, complémentaire lépp lu ci jaadu ñu ñu ñu ñu ko soo waree fayit dina réew mépp xam ne kii dafa jël dafa war a fay parce que noonu lañ toppee Karim Wade te gisuñ ci moom ñaari dërëm yëfi tappale la noonu lañ def Khalifa Sall les gens sont là et on fait pire que ça donc bonne gouvernance moom amul ci Sénégal euh, réew moo xam ne nii soo jëlee les rapports yi wax dangay xam ne c'est c'est c'est même une corruption euh, boo xam ne du politique wala volontaire ndax comme que seef bi képp ko ànd ak moom du la topp te du la seet te du bëgg lu ñaaw ci yow damaa defe ne c'est le président Macky Sall qui est à la base de cette mauvaise gouvernance d'accord professeur euh, Meissa Babou fan yi ñu génn yow euh, am na foo wax que ne Sénégal euh, réew la moo xamante ni réewum ger la loolu moom foo mu tege waa mi ngi tege d'abord ci rapport yi rapport yi koy weesul ger ah kilo ñebbe quatre mille francs ñu gis ko ci ay rapport fan la mujj mujjul fenn kon kay ger bi mi ngi fi IGE wax na ko man du man naa ko wax wax na ko boole ko xam nga la la la le coût de la vie bi wax ak ak les faibles salaires mais li muy indi mooy mais kenn ku ci nekk tey fonctionnaire boo xam ne ni daanaka le dix dootu yor dara ah ñi ñëpp a yem ñooñu mais attends si tu viens dans un service mais il te regarde les yeux il faut nga mën a joxe dara kon réew mi moom corruption mu àddina bépp la am mais nag li ci li ci li ñu wutale mooy am na réew moo xam ne nii suñ ko seet euh, suñ seetee ba gis xam nga ku seetu sax doo gis mais soo seetee ba gis mel ni OFNAC li ma def mais normalement sanction daf ci war a topp loolu rek mooy suñu problème ak yeneen réew yi tout la corruption existe dans tous les pays du monde mais Sénégal dafa dafa jéggi dayoo ndax on connaît les corrompus on connaît les corrupteurs te dara fekku leen ci. léegi réew mu ger gi bari lan mooy ëllëgam. oui mais manque de ressources am na yoo xam ne ni yàq la yàq ressource la maanaam tey nit ñëw kenn ci état bi da koy ger mu indi benn projet boo xam ne pourtant projet bu baax la mu laaj ko loo xam ne nii xëy na waaja du ko nangu wala bëgg sa sëddoog moom eh, yenn affaire yi waaji yóbbu projet am dem yoonam muy perte bu rëy si réew mi léeg-léeg nga ñëw yor loo xam ne ni tekkiwul dara mais jaar am foo war a jaar rek gars yi na gonga yow la xam nga bi ñuy CNO eh, bi muy ñëw ñu naan eh, day remplacer kii lu ne wax nañ ko fi parce que le maire de saint bi nga xam ne moo demoon négocier affaire bi nan la la ci doon wax ne waa avant yow nga koy jox marché bi ni naan may na la ay camion Euh, xaw ma mbalit ak yu kenn xamul mais yooyu dafay teexel am dafa am yoo xam ne nii dafa mun warul mën a ne kon euh, Sénégal moo tëddee en tout cas euh, noo xam ne nii tey bëri na kilifa loo xam ne nii lu ne sañ na ko. loolu nag moom du def lu du yokk ger jërëjëf euh, professeur Meissa Babou di économiste jàngalekat ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mbokk yi moom la ñu invité tey ci seen émission pencum réew mi muy am ci rajo réew mi FM samedi bu jot bu euh, quinze heures jotee jàpp 16 heures maanaam ñetti waxtu jàppoo ñeenti waxtu professeur euh, ren nag ñi nga xam ne ñooy waa douane dañu am ay recettes yoo xamante ni toll na ci 1000 milliards mais dafa am ñoo xam ne jàngat biñ si def ci ci recettes yooyu. mooy dafay firndeel ne amul lenn loo xam ne moom la Sénégal di jëfandikoo ci biir réew mi lépp daf koy jëggaani sa bitim réew mille milliards yooyu ban lecture nga ci def professeur. ah bi ci njëkk mooy xaw na ma bett parce que tamit année bi at mi ku ko xool xam ne euh, économie bi doxut na mu daan doxee. Euh, amul benn importateur booy woo mu ne la def naa cent pour cent wala cinquante pour cent la ma daan def kon. man chiffre bi xaw na ma bett foogoon naa ne euh, capacité bu financière boobu douane euh, amu ko ñaareel. mais mais gëm nga ko mais gëm nga ko. bon euh, moo bett na ma daal. vraiment bett na la mais est-ce que gëm nga ko. xam nga mën naa bett te nga gëm ko. waaw déedéet mënuma ko gëm trop. boola bokk facteurs yi may teg pour gëm ko. mooy ay changement de toux maanaam ñaar ak ñett yu ne nga dégg ñu ne douane yokk na lii commerçant yaa ngay bañ ñi nangam sangam ay yu noonu su amee yooyu mën na indi effectivement. une augmentation boo xam ne virtuelle maanaam quantité yi changé wul mais prix mën na changé. mais mais mais dégguñu fi mais dégguñu fi yenn commerçant yu yuuxu ne douane yokku na ci mbas mi yëpp. mais si non non y avait quelques mouvements da ngay xee mbas mi si biir mbas mi. waa la exigé douane lii la exigé loolu commerçant yàgg nañ ko wax donc yooyu mën na nekk ay facteurs explicatifs yoo xam ne ni xëy mën na yokk recette douanière bi daal léegi du ma leen weddi euh, carrément mais damay wax ne en tout cas affaire bu xawa tey xel la ndax bëri na Sénégal yu mu tey seen xel réew mi demut dikkut ñu ñu mën a liggéey euh, autant ah, xëy na loolu aussi ah, mën na indi jeexi jaax ci xelu nit ñi. léegi euh, mille milliards yooyu est-ce que firndeelu timit ka ne lépp bitim réew lañ koy jéggaane. waaw non normal la la douane doit faire plus que ça xam nga soo xoolee budget bi tout est fiscal budget bi tey su demee ay quatre mille milliards ndax mille milliards yi ci benn temps du du at bi. ah ndax at mi euh, la douane produit ay deux mille euh, quatre cent deux mille trois cent milliards hein douane day dem ba deux mille cinq cent milliards ci biir at mi damaa ragal ne mille milliards bi benn trimestre la quoi. d'accord mais trimestre xëy na ba mujj bii daal. Ah. léegi nga xam ne loolu mooy defar budget Sénégal waaw bu fekkente ne kay la douane a bien travaillé pour nous permettre d'avoir un budget qui dépasse trois mille milliards ak leb yu ndaw yi ñu ci te leb xam parce que le calcul yi nga xam ne daanaka moom la ñu xam ne mooy déficit budgétaire bi da ngay gis li douane liggéey kon vivement que bon cette douane là travaille très bien ñu ñu xoolaat assiette yi ndax euh, am na ku ñu raawul fay am na ñuy jaar ruq am na yooyu yëpp douane bu fekkente ne fex fexe na ba ba ba corsé Euh, mesures yi mën na man na jur effectivement aussi euh, ay entrées d'argent. d'accord léegi ñu wax ci euh, li nga xamante ni démb benn communiqué la boo ko boo xam ne Abdoulaye Daouda jàll yónnee na ko ci presse bi muy conseil d'administration du Fonds monétaire international di FMI gi nga xamante ni daal moom favorablement conclu li nga xamante ni moom mooy ñaareelu revue programme économique boo xamante ni daal amul sax benn débat loolu yow lu si sa xalaat. waaw xam nga ce sont ce sont des ce sont des réunions je ne suis pas trimestrielles eh, et cetera yoo xam ne nii eh, banque mondiale souvent réew yëpp lay ñëw toogal mais agrégats yi muy xool mooy problème bi cest à que tey banque mondiale du ñëw mu ko xool le niveau de prix au Sénégal toppatoowul sax loolu du xool la niveau de chômage au Sénégal toppatoowul loolu agrégats yi muy xool mooy lam ñu daan wax rek naan ñu woy vous pouvez emprunter tant qu'il y a de la croissance après du xool est le Sénégal a respecté les échéances financières maanaam est-ce extérieur bi mu yoreel ñoom banque mondiale ñoo ñoo bourse yi est-ce que mi ngi koy respecté te ñu ngi ciy góorgóorlu ñoom di ko respecté boobu moom dañ koy def ba pare euh, dem xaaxa étudiants yi ne amatuñu lu leen jox wala xaaxa beneen service wala entreprise intérieure yi ni ci réew mi ñun leen duñu leen fay amatuñu mais euh, ñu seen diggante ak bitim réew dañ koy respecté ba nga xam ne foo loolu mooy tax rek banque mondiale di wane kontaanteem ci Sénégal ndax comportement bi mu am tubaab yi ak am ko ak institution financière internationale li ñuy wax PTF PTF yi loolu ñoom satisfaire na leen waaye booba ñun Sénégal yi lambda ñu ngi dee ñu ngi dee ci ay augmentation de prix ñu ngi dee ci ay service bu matut ñu ngi dee ci hôpital bu mënut a pare ñu ngi dee ci université bu mënut a pare et cetera et cetera. d' accord euh, professeur ñu daal di wax ci li nga xamante ni nag euh, fan yi ñu jàll gis nañ ne euh, nekk na en vigueur muy loo xamante ni nag euh, mën nañu wax ne xaar bi wala discussion yi yàggoon na muy zone de librement échange continentale africaine muy ZLECA li nga mu xam ne dafa yombal taxi diggante réew ak réew ci déndu Afrique yow loolu lan moo ci sa xalaat. waa xam nga fanweeri pays ak ñeent 34 pays ñoom ñoo signé pour le moment. sur les cinquante quatre mais euh, lu baax la xam nga ah, kaañu bokk liggéey moom mm, baax na waaw moo gën réew mu nekk beru ñun nag amoon nañ chance nekkoon ci organe mm, boo xam ne nii ñu ngi ko à ah, benn grand espace ñu ko doon wax CEDEAO mais euh, xam nga suñ ubbee ni réew yu bëri dugg nag kenn dootu fay nangam sangam damay ragal ne Nigéria li muy ponkal ponkal ponkal keroog ba euh, Maroc ne damay bëgg dugg dugal leen ma CEDEAO Nigéria moom njëkk a yuuxu ne du fi dugg parce que tamit réew la Maroc par exemple une économie tellement équilibrée boo xam ne nii su duggee ci biir zone bi fayatul douane fayatul bari damay ragal ne secteur d' activité yëpp yëpp ñoom dañoo bëri doole dañuy ñëw ne faax euh, nii ñuy kaase ñun naan chinois yi dañoo ñëw fii sonal suñu marché ambulant ambulant yi yàq nañ liggéeyu commerçant Sénégal yi loolu laay ragal ndax su boobaa dootoo mënatee benn réew kon réew mu nekk da war a xam nga ne fii nga jëm da ngay war a développé yow loo xam ne nii ci biir yeneen réew yooyu mën nga ko faa jaay wala book nga commencé loo xam ne nii tey euh, mën nga ko def mu intéressé beneen réew nga xam ne immédiatement dootul jarati sax ngay dem euh, tugal mais li ma ci euh, naqarlu te mu xama ci jaaxal ci capacité bi am ñun mooy xam nga intra africain bi quinze pour cent environ la woon léegi ñun dañoo niroo maanaam niroo bi mooy ñun suñu gerte lañ yore Euh, mënuñ ci dara benn pays africain mënu ci dara benn Côte d'Ivoire nga ne yor cacao amul réew africain bu ci mën dara euh, coton maanaam wëteenu Burkina bi amul réew africain bu ci mën dara waaw kon bu fekkee ne ñun ñëpp ay matières premières lañ yor ñun lu ñu ànd ànd lëngoo lëngoo lëngoo ñun ci suñu biir mënuñoo commerce ndax kenn ku nekk la nga yor sa morom bugg ko mënu ci dara kon xam nga daanaka ànd ànd naxaate sax lay doon ci biir ba nga xam ne réew mu ci am fulla daal Euh, avancé tuuti ci sa industrialisation yow rek yaa ci mën a am chance. d'accord ñeneen ñi rek ñeneen ñi nag dañoo war a góorgóorlu. Euh, pour dabe euh, d'accord professeur lu jëm ci wàllum industrial industrialisation ci Sénégal est-ce que gis nga ne suñu nguur yi am nañ si benn vision bu leer nañ wala am nañu si ay pexe. waa xam nga le président Macky soo jëlee dans le fii ci Sénégal en tout cas suñu réew moom wax na fi ñaar agro business wax na fi agro industrie. maanaam il faut que ñu dem ci transformation mais loolu ce ne sont que des mots rek ay baat nga wax ni pare ci ba nga demee def ko vision da nga waroon commencer def cadre administratif bi def cadre fiscal bi def cadre yëpp yoo xam ne da ay réformes yoo xam ne day accompagner vision boobu nga daal commencer détecter les acteurs yi nga xam ne euh, ñoom mën nañ ci biir secteur bi mën nañ ci dara ndax déjà ñu ngi ci yëngatu xam nga kuy ceeb. soo ne ko kaay ma jox la nag ay terrain nga bay ceeb euh, kooku day nangu et cetera et cetera donc il faut que accompagnement bi am cadre bi ñu tracé ko pour que nag loolu nga xam ne dafa am solo te moom manqué muy industrialisation te moom rek moo mën a régler problème chômage bi il faut que loolu ñu régler ko définitivement te euh, mënuñu régler des problèmes de chômage et d' emploi tant que industrialisation bi amul tant que agro business bi ma lay wax amul. d'accord léegi mais professeur euh, li nga xamante ni moo jëm ci mbirum euh, emploi état bu Sénégal euh, maa ngi ciy wax saa su nekk waaye ñoo gis ne pour mu lijjanti problème boobu daal jafe na te ñenn ñi tamit dañoo jàpp ne réew mu nekk li nga xam ne moom mooy entreprise privée yi. ñoom ñoo war a jël ay emploi yu baree bari mii fii ci Sénégal li ñu fi nemmeeku mooy bëri na ay entreprise yoo xamante ni tey ñoo ngi nërmeelu yeneen yi tamit euh, jëluñu li nga xam ne moom lañu doon jël ci ay emploi est-ce que loolu tamit euh, ba pare tamit ñenn ñi jàpp nañ ne nguur gi joxul gëdd dëgg-dëgg euh, secteur privé national bi yow lu ci sa xalaat waaw loolu sama xalaat bu njëkk mooy dañu ne sax c'est-à-dire fii Sénégal liggéey fi dafa jafe maanaam am na ñu bëri ay PME wallahi dañuy góorgóorlu mais soo xoolee seen i maanaam seeni bénéfice day faible faible ba nga xam ne eh, da lay woon ne kii pour mu évoluer maanaam machine sax su yàqoo pour mu jëndaat ko oto oto su yàqoo pour mu jëndaat ko problème pourtant ni ngi liggéey donc fii eh, li te li koy waral mooy salaire yu cher location bu cher ndox mu cher courant bu cher charge yi dañoo méttee méttee méttee ba nga xam ne ñun suñu entreprise soo leen méngalee ak entreprise tey bu nekk Guinée mais kooku da koy raw fop ndax la muy fay courant ak la muy fay ndox yooyu mooy gën a yomb ñun li ñuy fay kon kooku facteur euh, limitatif la boo xam ne tey moo faagaagal suñu entreprise yi beneen ba fiscalement même même fiscalement Sénégal ni mu toppee fiscalité ak ni ni ci toll yeneen réew yi euh, xëy na euh, ñu gën a nasax ci côté fiscalité ba ca des mooy il faut ñu comprendre que ne aussi ces entreprises là ont un de financement cest dikk dire yow da ngay nekk ci entreprise bu ko développé waaw tey banque boo dem mu laaj la kayitu kër wala mu laaj la kayitu nangam sangam boo xam ne ni yow doo ko am c'est-à-dire que les banques euh, ne pas leur rôle de financement loolu nag aussi yooyu yëpp soo ko dajalee day tax ba nga xam ne suñu entreprise nasaax nañ ba pare kenn du ci am marché bu bu day ni marché turc wala chinois état bi non seulement du la ko jox mais li tax du la ko jox aussi mooy même su la ko joxoon quatre cent milliards yi turc bi mën a indi wala chinois bi entreprise Sénégal mënu ko indi. kon nag euh, yii yëpp ay gàllankoor la yoo xam ne nii. dafa tegu ci kaw entreprise yooyu. Euh, professeur euh, léegi tey euh, waxtu wi jeex ministre bi ñu dénk wàllum économie wàllum finance. Amadou Hott ak ki nga xam ne mooy daaw di jàll ñaar ñooñu tey seen taxawaay ak seen vision ni ñuy doxalee ndax yow jàpp nga ne doxalin la woo xamante ni tey mën naa jëmal jëmle Sénégal fenn. waa Hott de moom mënu wax dara parce que comme que moom ci plan la ne day planifier te plan de relance bi mu génnee man ba pour man baax na. Amadou Hott. waaw donc man jàpp naa ne il a fait un bon travail ci planification bi xaw ma nag danañ ko jëfee duñ ko jëfee maintenant pour le ministre des finances moi je crois que les carottes étaient cuites depuis Amadou parce que c' est Amadou Ba qui nous aussi dans cette détresse financière hein ndax lépp boo xam ne nii di ko def ci ay projets yoo xam ne nii xëy na nag il a travaillé sous la coupole du président de la République comme que nag moom it euh, comme le président wax rek même premier ministre tekkiwul dara moom moo tekki lépp xëy na tamit dañ ko doon liggéeyloo ci noonu. mu liggéeyee noonu ba nga xam ne tey euh, bor yi daf ñu xoj moo tax man ministère des finances daal jàpp naa ne ña fa nekk ñëpp ay fiscalistes lañ en général mais ce sont des gens qui ne sont pas tournés dans la bonne gouvernance financière. d'accord li nga xam ne nag moom mooy laaj bu mujj bi moom mooy euh, lan mooy euh, la meilleure des politiques économiques du Sénégal fi ñu toll nii professeur. waaw fi ñu toll fii nii mbas mi daf ñu ko wax mbas mi won nañu ne dañu nasax. ci agriculture ndax amuñu autosuffisance alimentaire on n'est même pas dans la sécurité alimentaire kooku benn la ñaareel ba war nañu ne euh, le chômage massif de ce pays là euh, ne sera réglé que à travers un link entre cette grande agriculture ak benn industrialisation te loolu aussi amu fi ñetteel ba war nañu ne le capital humain dont par le PSE il faut absolument que les gens soient soignés te xam nga ne fi ku fi feebar moom say boo say mbokk teel laa ñaanal euh, ba ci des mooy la formation formation bi c'est vrai ñi ngi teg ay structures yu bëree bare bare bëri mais euh, la ca jiitu mooy l'école publique te école publique bi tey xam nga ne dafa nasax euh, pour ñu construire le sénégalais euh, def ko un capital humain capable de se défendre et de se mouvoir dans l'économie nga xam ne doo fi nekk di yuuxu naan ay ana état ana état ndax da ngay am métier am xam-xam boo xam ne ni mën nga bokk ci développement te doo woo état doo woo kenn ndax am nga capacité bi kon on a d'énormes problème énergétiques parce que l'eau et, et le truc euh, euh, les principaux facteurs de blocage du développement aussi bien du côté des citoyens ndax euh, cent mille francs soo ko génnee naa nanga koy def ci benn facture courant cinq quarante mille cinquante mille ndox mi wax dëgg yàlla cent cinquante mille yooyu su ku la ko bàyyi woon tey yow en tant que citoyen mais man na leneen yow sa développement personnel da gis ne yooyu da koy freiner kon yii yëpp ay facteurs la yoo xam ne bloquant yoo xam ne tey dafa faagaagal réew mi Euh, état bi xëy na foofu la waroon a tourner sa vision. bàyyi nag ñu commencé nag bàyyi nag vraiment ay tali ki ponk yooyu moom dañ cee doyal wax dëgg yàlla ñu tourner vers ces investissements sociaux de base nga xam ne mooy problème Sénégal. jërëjëf euh, professeur Meissa bu ñoo ngi lay sant di la gërëm lan ngay tàggoo. waaw xam naa damay sant gërëm rek nga xam nga euh, ñun li ñuy wax dañ koy teg ci li nga xam ne moom la ñu xam. weddiwuñu ba bañuñ na kenn ñëw weddi ñu ba bañuñ ne dañoo juum xëy na nit ñëw nañu fii danga fee fay juum yooyu amul problème. mais duñ la wax mais wax ab opposant nga aussi parfois. non non non mais suñ ko waxee tamit xam nga man ñi may déglu sama ay collègues lañ ak sama ay étudiants ñu ci ëpp te ñooñu boroomi xam-xam lañ ñu àlla kuli àll du ma wax luñ may xeebe est-ce que comprendre ma te lii may wax vision économique rek la maanaam économie li tax mu xaw a jafe mooy euh, loo def nit mën na koo baaxal. mais fekkente ne ñun dañoo dugg ci science bi dëgg nag rationalisation bi dangay gis ne euh, ki ne euh, baax na am na loo xam ne soo ko waxee dana xam ne lii moo gën maanaam ñun baax taxu ñoo jóg euh, vision dafay war a gën te gën bi dañ koy yokk wekk ci ne li nga yor matut loolu mooy économie li nga yor matut soxla yi dañoo bari il faut que donc ñu ordonner affaire yi xam fi ñu teg suñu tànk pour bañ gaañu mais fekkente ne nag keneen bu day politique bon moom lu ko neex mu wax xam nga ne terre bi eh, ku ànd ak xelam munu taxaw di ko défendre mais am na ñoo xam ne pourtant il la défendre ay bourse familial naan ay nit am na ku toog cinq euh, at mi yëpp amul cinq mille mais ça c' est pas ça un projet da koy évaluer au niveau économique xool ses effets xool ses effets au niveau environnemental au niveau social loolu ñun ñu ko defee daf ñuy jox ay ay ay paramètres de jugement nga xam ne dañuy xam ne lii Euh, objectif bi mën na bañ a changer mais dañ leen di wax yéen méthode bi ngeen jaar moo baaxul nañ changer mais objectif ba toujours mën nañ ci dem lutte contre la pauvreté kenn bañu ko mais soo demee buddu familial ba ne la nañ dem ci àll bi ñu def ay tool bay autosuffisance dana ci génn ñi nga bëgg a dimbale danañ ci am revenu chômage bi dana wàññeeku gis nga day am ay ramification sax ndax 40 milliards par at nee leen suñu ma ko joxoon su yàggee def naa réew mi dana baax. jërëjëf euh, professeur Meissa Babou di euh, économiste jàngalekat ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru moom la ñu invité woon tey ci seen émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM Abdou Khadre Seck moo nekkoon ci micro bi Mamadou Diaw Diallo ci wàllu technique bi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm ba samedi bi di ñëw incha allah ci beneen jataay